dégg naa it bés bu nekk ñu wax fonctionnaire milliardaire dëgg neex yàlla maa ngi sant suñu borom ndax fi ma jaarale ci administration ma ko ciy sant ku fa jaar am loo yor nag xëy na ci sama carrière bokk naa ci inspecteur des impôts yi ëpp li ñu leen fay loolu la yàlla dogal ndax yàlla mayoon na ma ma xarañ ci liggéey yalla may ma ma nek ci service yo xamanteni service yu mag la xëy na ci li sabab syndicat ba doon yuuxu di wax dañu fexé gëna sédélé avantage motax bala may joggé directeur général réforme bobu bokk na liko ko ak syndicat ba fa nekkoon ndax ñu gëna a mbir yi